asalaamaaleykum wa rahmatulah mbokk téléspectateur Mourides Info maam Awa Diouf moo leen nuyu bu baax di leen ziar di amaat mbégte ak contentement jàkkaaru yéen fii ci seen site internet Mourides Info ci sen émission jikko tey nag émission bu ñu ànd ak ak suñu sëriñ suñu ustaas sëriñ Ahmadou Ndiaye Nguirane mu ñu gën koo xam ci dëggu di ustaas boo xamante ne bu am xam-xam la boroom xam-xam bu sell bi boroom dëggu gi. tay nak suñu émission tay dañ ko jëmmalé euh, ci euh, ànd ak mom ñu bàyyi ko mu nuyoog askan bi a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه وخديمه سبير الدواني والتمكين بقي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ñu ngi nuyu bokki jullit yi bokki taalibe yi li ci jiital kilifa ak yoon wi Cheikh Mouhamadul Muntaqa ak mboolem usratul xadime yëpp leen ñaanal tawfiq leen ñaanal suñu borom gàttandu ba li leen mag ñi dégg ñu di ko sàmm yàlla bu ci dara sikk barakat Cheikhil Xadim aleykum salaam wa ñu ngi fay nuyu bu baax a baax sëñ dañoo ñëw ci yow di sàkku nga laaj ñun ndaw ñi jikko yu yàqu yi nga xamante ni si seetlu nañ ko ci jamono ji ñu nekk mu gën a ëppee ci ndaw ñi te ñu xam ne ndaw mooy yaakaar réew ëllëg te ñun ndaw ñi ñooy nekk mag réew mi ëllëg lan moo waral yàq-yàq jikko yooyu ndax waajur yi daan yare dañoo yarewut wala jàngukaay bi dañoo yarewut wala tamit ñun ndaw ñii ñoo dëgër bopp ñun ñoo neexut a bismillah aouzu billahi min asheytaan irajim bismillahi irrahmaani irrahim barakat Cheikhil Khadim jërëjëf question bu am solo la toll nañ ci jamonoom jamono itam soxla na ko ñun ñëpp ñoo bokk di gisandoo fii jamono ji toll te mooy yàqu-yàquk jikko yi te aw xeet buñ koy évaluer ci jikko lañ koy natt su jikko yi baaxee askan wi baax na su jikko yi yàqoo askan wi yàqu nañ gis nañ léegi joxoñ bu leer ci yàquteg jikko yi rawatina ndaw yi ak jigéen ñi te avenir réew mi ëllëg mi ngi ci loosu ndaw ñi te euh, Seexuna Seex Ahmad Bamba dañ koy laaj ni ko ndaw lu yarut dani bu magge di mag muhammadi mag muhammadi nak lepp loko denk yak da yaq way du jëm kanam te loolu gis nañ ni moy moy li bari lool te mel na ni bim tambalé yag na mu melni ni kon système éducatif biñu biñu yor dafa melni ni jar ndax melna ni tibu sénégalais biñu soxla budé daara yi ñu yor nga xam ne ci la ndaw ñu nekk daara yi moom échec nañ ñun ñëpp maase nañ xam loolu muy jafe-jafe lañ am ci ci wàllu yar mooy léegi kan mooy war a yare ak fan la ñuy yare mel na ni ki war a yare ak barab bi ñuy yare yooyu yëpp yàqu-yàqu dugg na ci te mooy jikko yu suufe yoo xamante ni nii amatut valeur yi nga xamante ni moom lañ xame woon réew mi te mooy ngor ak jom te ñaar yooyu ñooy sàmm diine te yooyu yëpp nag dara waralu ko ludul pas-pas bu suufee muy négliger gu ñu négliger suñu diine ba yaratuñ ci suñu diine loolu itam tax na yar bi xaw a am ay jafe-jafe beneen bi ci des itam mooy jëggaani gi ñu jëggaani ay culture yoo xamante ne ni jëggaani nañ ko ci bitti ñëw jaxase ko ak sunu culture tax na itam sunu aada ak sunu cosaan daf ñu daal réer te boroom xam-xam yi dañuy wax ni nit mbaax lay judduwaale ñeneen boroom xam yi ci des wax ni déedéet nit bon lay judduwaale ñeneen ñi ci des ni déedéet nit kamte lay lim judduwaale ci mbon lu toll noonu la judduwaale ci baax ñu ni kon lu koy soppi ba tax mu baax walla mu bon ñu ni environnement bi moo koy soppi ak euh, héritage am ñun nag suñ environnement mbaax la woon suñ héritage itam mooy suñ doonu diine la woon waaye gis nañ ni néewal guñ ko néewal doole ak ñàkk guñ ko ñàkk dund jeexital na ba indi yàqu-yàqu yu bare bari ci jikko yi nga xam ne la suñ boroom doon wax ne laqad xalaqnal insaana fi ahsani taqwim soppiwut bind ga waaye lu tax mu ne ma raddanahu fi asfali saafilina mooy doomu aadama àgg ci ak mbonom ak jikkoom ju yàqu di jëf loo xamante ne ni bàyyi may sax ak séeguñ foofa ci seenu mbon loola te ñoom amuñum xel doomu aadama mi am xel àgg ci jëf ak a wax loo xamante ne nii fa tabaraka la bàyyi ma àggul foofu te loolu mooy li alxuraan di wax rek ne ulaayika kal anam bal hum adal suñu borom ni ñooñ dañoo ki bàyyi maayam mu yàgg mu ne ñoo gën a réer yi bàyyi ma sax ndax ñoom am nañ xel di xalaat te bàyyima moom amatum xel kon doomu aadama koy tëkkale ak ma mel na ni fa mu àgg ci dayab yàqute foofu wax dëgg yàlla neexatu la te loolu lañu ñu seetlu ci réew mi mooy seeni jikko yàqu na bu baax a baax ndax ngor jeex na fi te ngor ba ngor jeex mooy bañ a ñaaw sa diggante ak sa borom bañ a ñaaw sa diggante ak say nawle nit ñi ni ñuy ñaawoo ni ñuy yàqoonte ci seen biir am amuk àdduna jëru ko jom itam ba jom jeex mooy bañ a des ginnaaw nit ñi ni ñu yàccaarale nga xamante ni kenn ku ci nekk jàpp nga ni damm sa bëtiwam sa kanamum nawle moo lay may teraanga loolu ak ñàkk jom féetiwu ko kaw te yooyu mooy yi nga xamante ni ni nit ñi seetlu nañ ko seetlu itam ni ak yàccaaral ci ak liggéey ndax loolu mooy tax waxtu wu ci nekk crise bi day gën di dolli ko ñàkk gi day gën di jëm kanam ndax ginnaaw ndaw ñi nanguwu ñoo liggéey te mag ñaa ngi jëmu mag loolu moom ku seetlu te xam dara da xam ne réew mi fi mu jëm baaxul te foofu rekk la jëm muy ndaw ñi jàpp nañ ni xaalis moom dañ koy lijjanti mais waree su ko liggéey loolu itam idée la boo xamante ne nii wax dëgg yàlla kenn xamut fuñ ko jëlee mais du ci sunu mag ñi ndax damay wax ni mag ñi moom fa la seen baat ca raay ba ndax toujours dana koy faral di wax ni li wagg yi rojon ba legi borom tracteur yi mënuñu ko bay li naru góor yi don rambal ba legi borom passero yi ko dajal kon mag ñu man fop mag mo gis lam bàyyi ci suuf njabotam gep buñ won seeni bien di ko jënd mënuñu ko jënd kon mag moma leen gëna yaw te ba jamono naqare la lijeenti won lool bi jamono nexé lan lañ def moy wax yu bari même da fay feñ ba ci étudiants yi ñi am sax daanaka ñu ci bari bo leen laajee lu ngeen di def série bu ñu demee université ko ci laaj dana la ellu lay def moy littérature wax rek la jang té te wax yi kese moom da suttalu dara yoy yëpp fi ndon ni yu mata xolaat la ci ndaw ñi lu mata bayyi waat xel la surtout système éducation bi ñu yor mom mom fépp la yaqko ndax bu dé daari tarbiyé yi yi nga xamanteni ci walu diiné la doon dox gis nañ ci ak yaqku moy léegi ki nga yaral sa bop moy gëna mat mooy gën a complété mooy gën a efficace ki nga joxe woon ñu yaral la ko bu dee daara alxuraan yi daanaka gone yi dañ leen koy sol waaye taxut fi mu doon nii yar ba demewut noonu mooy kii dafay jàngale waaye yarut te bañ nañ ko ba éducation la ñuy wax avant ngay enseigner da ngay éduquer ba pare moo tax même bu dee arab tarbiya lay wax wa taalim mooy day jàng yar door a jàngale même bu fekkente ni nii itam école yi la gis nañ ni kon yi ñu gën a fonk nga xamante ni ni boo ñu jëlee 40 pour cent ci bit séew réew mi ci ñoom lañ koy dépensé waat bu oto lakkee ñoo ko taal bu bureau tojee ñoo ko toj buñ taalee na ci mbedd mi ñoom la maa maanaam sax da ngay xool sax ni donc ngay daara yi ci daara yi ñoo leen tane ndax te ñoo ñoo waroon a geraw ndax ñaari doom lañ yoo xam ni réew mi rek leen jaboote moo leen jur amu ci kenn ku ci ëppale moroom lenn lu jar ñu favoriser kenn ka desal gannaaw ka ci des te daa mel ni sax ki ñu gannaaw moo xaw a tane xaw gi mooy du gisuñu muy déconné waaye bu dee ci formation ba wax dëgg yàlla des na lu baree bari loo xamante ne ni réew mi dana ko soxla ci defar jikko lii dal mooy nga xamante ne ni gis naa ko ci suufeeg jikko yi ak yàqute gi mel na ni mag ñi nag dañoo démissionné ci yar démissionné gi ci yar mooy joxoñ yi leen yonent bi sallallahu alayhi wa sallam joxoñoon ngir ñu mën caa teg seen tànk yooyu yëpp dañ ko bàyyi parce que toujours yarub goné damay wax ni do bàyyi ba dom judd nga commencé yar dom bam mu ngay commencé di ko yar wax nañ ben borom xam-xam bo xamanteni ni dam ko indil dom niko dama bëgg nga yaral mako mu ni ko ki yar ko weesu na te koku da tollu ci dal jang mu dem après mu amat dom mu fer rek mu ko ak lay taye ya indi ni ko kii la bëgg ko ma ci dimbali mom yaral mako mu ni ko itam yar ko weesu na mu ni ko kon ak muy bëgg jahal, jaaxal indi na fi ko tollu ci dal jang nga ni yar ko weesu indiwaat fi keneen koo xam bis bu mu feree dellusiwul ngeen yar ko weesu na mu ni ko waaw bi nga bëggee ma yaral la ko danga ma ko war a ndox ma tànnal la nday ja kon mel na ni ci tànn waajur ci la ñuy commencé yarub doom mooy bala ma takk soxna lay xool ba xam sama doom noonu laa bëgg mu mel ni jikko yi ma bëgg mu mel ni ndax soxna si amee na ko wala ameewu ko soxna yi itam war naa xool balaa dugg ci biir néegub sëy ndax góor gi muy àndal mat na bàyyi doomam wala déet suuf bu boobaa nag la ñuy commencé di di di former di préparer benn foyer boo xamante ne ni bu juddoo buñ boolee environnement bi ak héritage bi dana doon nit ku responsable koo xamante nii bu ëllëgee ak si biir fu mu taxaw dañ xam ni kii jaar jaarale ci barab la yoo xamante ni nii fa tabaraka la nii rek la mën a mel waaye nag fi ñu doon ni heureusement société bi ni ñuy ni ñuy doxee bu fekkente ne ni gone yi lañ daanaka ñooy tànnal seen bopp tànn gi ñu tànnal seen bopp qualité yi ñu tànnee baaxut benn taar la ñuy tànne loolu yonent bi sallallahu alayhi wa waxoon na ni gënut benn alal la ñuy tànne waaw itam yonent bi sallallahu alayhi wa waxoon na ni taxul mu gën beneen bi ci des mooy ni ko sénégalais waxee yax bu rëy la ñuy tànne donte kenn la yoo xam tuutut waaye taxul mu gën waaye yonent bi moom bi muy wax dañuy da ngeen tànn ci jikko mooy li am solo jikko jooju nag diine koy jàngale diine mooy jàngale jikko ndax yont bi sallallahu alayhi wa sallam mom la suñ borom yoni te mo mel ni neex suñ borom ba tax yàlla diko tag niko wa innaka la ala khuluqin azim yonent boobu yi nag lanu suñ borom joxoñ ni roy len ko in kuntum tuhibbuna la fattabi'uni yonent bi tam wax ni su fekke yo beug yàlla gi ngi wax deug la ci yéen moy top len ma jëm len a mel ni mo mel rek muni su ngeen beugé yàlla ni su ngeen beugé mel ni ma neex roy len ko in tuti'u tahtadu moom it mu dellu waxaat nag ni innama bu'istu li utammima makarimal axlaq suñu borom daf maa yónni ngir ma mottali jikko ju rafet kon ku la gën a niru yonent bi ci aw doxin ak jikko moo la gën loo ko gën a sori di gën a yées say morom moo tax sëñ Tuubaa mi ñu amaat ci référence nga xamante ni maas nañu ko duut baaram ni ab royukaay ngi ni dafa wax ni maa lil yow ma xaajaatun o amiluha ila ixtifaika xafwal xalbi wal badani amatuma jenn yitt nag yenn jenn rek ci du bi sallallahu alayhi wa sallam ci xol ci yaram lépp aw toogi nag waxi nag jëfi nag lépp yonent bi salo kon la suñ tubaab waxoon ni huwa naazuwal misaan yonent bi mooy nit mooy référence bi mooy modèle bi huwal misaan itam mooy poids bi nga xam ni ci la ñuy natte ku ko yées dañuy jàpp ne da nga manqué te yonent bi liñ koy natte du diisaayu jëmm waaye jikko moom lañ koy natte lii mooy li nga xamante ne ni seetlu lañ ko te gis naa ni itam amagut solution boo xamante ne ni jàpp nañ ni buñ ca jaaree da dana mën a soppi lu bare bari ndax fii technologie toll mel na ni yar gënati naa jafe ndax espace daa amatut adduna bi léegi benn benn pantre la boo xam ñun ñëpp ñoo ci marché dankaloo amut lenn loo xamante ni fi mu doon nii looy bañ ko ne xam ko te mënu koo xam te doo ko yëg amut leneen looy bañ ko ne def ko te liñ leen doon ragaloo lépp fi mu doon nii ñeme nañ ko parce que yàgg nañ koo gis te mooy xeeti bon yi xew yëpp rek nga xamante ni ni daanaka gone yi ci internet bi la ñuy yendu ci la ñuy fanaan te foofu daanaka mooy capital bon maanaam li ñu doon tere ab jullit lépp fa la dankaloo te gone yi am nañ efficacité lu ñu bëgg a xool mën nañ koo xool buñ tëjoo seen nga jàpp ni tëdd nañ booba tëdduñu boole ko xarit yoo xamante ni xamoo fuñ leen jëlee te lu ne la ñuy partagé ko seddoo ci seen biir loolu dafay yàqital seen jikko te yooyu boo génnee rek moom ngay gis ñu koy dund su fekkente ne ni am nga ñaw xeluk di gëstu léeg-léeg li jamono di sànni te jaare ci nouvelle technologie te boo ci xoolee rek te xool sa jaboot rek da xam ne am na keneen ku leen di éduquer am na keneen ko jàpp seen loxo ku leen di wommat ku bokkut aw yow lii nag am walla moo xamante ne nii wax dëgg yàlla gisaguma solution boo xamante ne nii jàpp naa ne ma des na caa jaar baraj lu dul ni li sëñ Tuubaa waxoon rek sëñ Tuubaa daal daa waxoon ni àdduna moom ab jëmb la bo xamni da sax ba ni lepp de ba wo korong nit ñepp tabbi ci biir ni doxalin naw tal ko ku jappone dawalay taxara ci nak do nit samp so xel mom do la taxara ci parce que vitesse bi mi daw mo gëna gaaw xel yi ñi daw señ bi ni boba ku bëgg mucc da ngay fexé li la wër set mo fim doon da no tollu ci kenn ku ci nek jema yar sa bop bu xamé ni légui ni kenn ku ci nek moy jema sa bop jema bax ndax li bon gi tasaro tasaro ñu bonut mom amna léegi nag kenn ku ci nekk da ngay am yitte ci jéem a defar sa bopp lu baax ak lu bon nag kenn ku ne xàmme na ko li nga xam ne da nga koy def te bëggoo ku ko yëg bëggoo ku ko waxtaane bëggoo mu feeñ loolu wóor nañ la lu bon la li ngay def te waxtu ci ne nga bëgg ko di ko dégg bëgg nit ñi teg ci seen bëgg bëgg ñu di ko waxtaane loola lu baax la lii rek la mooy nit ay fexe saa yu xëyee di gën di yéewe waaye loo gën a jëm ci ak yéewa di rek yaa ngi gën a jëm ci jikko du yàqu lii daal mooy. amna lu gëna fess moy élection yi élection nak buñ ko waxé dinañ ni politique politique nak fi ci Sénégal sélu nañ ci lén muy pour nga mëna politique dëgg dëgg dëgg faaw nga mëna wax lo xamanteni ci du dëgg faaw tamit nga mëna a alal réew mi té kenn du ko xam faaw tamit nga am fit di def xamanteni ci ni du ni dëppoo ak lislaam yow lan ngay wax ñooñu non té ñoom nga xamanteni ci ay ndaw lañ ñom lañ wara ëlëk suñu awé ci seen yoon Euh, mën nañoo jàdd mën nañoo aw ci yoon boo si doonul yàlla lu yàlla gërëm kon loolu ñooñu la nan nga leen war a wax. waaw ñooñu li ñu leen di wax rek mooy li ma doon wax sànq jikko diine la diine mooy defar jikko ñoo ñooñu laa doon wax ni seen pas-pas daa yàqu politique bi dara sekku ci politique mooy nu ñuy nase ngir yorinu réew ba lii ñëw ci réew mi kenn ku ci nekk di ca mën a jot sa wàll. man caa jot say àq te kenn du ko nasaxal loolu amut sikk waaye phénomène biñ koy defee ñi koy def seeni jikko yàqu ab jullit du fen mukk deesu ko pardone ab jullit seytaane mën na koo man mu naan sàngara ab jullit saytaane mën na koo man mu njaalo waaye yonent bi daa waxoon ne ab jullit du fen te nit ñi ñu yor li lay xamal ni seen jikko moo yàqu mooy liñ lay wax du dëgg liñ lay dig amuñu ko niñ la wan ne la noonu lañ mel meluñu noonu loolu du jikko jullit loolu kon dañuy xam ni nit ñi seen pas-pas moo yàq te li ko def itam mooy dañ fee fekk ndono loo xamante ni ni dañ ko dañ ko waroon a soppi mais dañ ko bàyyi noonu mooy réew mi biñ ñu koy jot dañ fee fekk système éducation boo xam tubaab yi ñoo ko fi bàyyi te tubaab yi système éducation biñ ñu nasaloon jàngale seen diine véhiculer seen message daa bokkoon ci liñ laxas ci biir bi ñu moomee suñu bopp dañ ko waroon a wëlbati dëppale ko ak suñuy suñu suñuy aada muy nu xam ne ay jullit lañ ñu jiital xam yàlla am na loo xamante nit ni ku xam yàlla ñemewoo ko mooy wax ni gone gone mooy seen gaynde da wuti ko waaye bàyyi mi xam gaynde bu seenee gaynde am na naneen maneen pexe mu muy jël mu dul wuti ko loolu tax nit ñi dañoo dañoo xamut yàlla dañoo déggul alxuraan nu li suñu borom di wax loolu moo tax su ko defee nag loolu jàngoro jëm ni jural mooy ñoo ñi nga xamante ni nii ñooy laaj réew mi te programme yi ñu yor dina ko wax bokkul ak li nii ni séentu ci ñoom maam duñ ko def loolu jikko jikko ju yàqu la seeblaat daa ndax ni képp koo xam ne waxi daawam ak jëfi réewam renam ñoo ànd nee na booy wut nit a loolu boo ko doon tànn fi mu doon nii doo doo am doo kenn koo xamante ni waxi daawam ak jëfi réewam ñoo ànd déedéet Sénégalais jàpp na ni fi mu doon nii manam balaa deug da la wor la wor da la fen motax fim doon nit ñi ci bari fim doni. doon nii jaaxle nañ te xamatuñ fu ñu jëm manam exemple léeg-léeg da ngay dem ci fi mu doon nii sëriñum ñaankat mu ne la yow da ngaa jég jigéen loo yaakaar mu tass fekk lolu du deug ji jigéen noonu lo mu tass ki ngay wax mo la wor mo la waxut bopam mo la fen dama am nit yaakar ci yow ñew wax ak yow nga ni ma soxla si busu babu bu yalla midi mo fi dikkee dana ko fajj te yow xam nga ni di du la fekk kon yaa ma waxut dëgg ma jël sama yaakaar wékk ko ci yow di ma ñëw ñu ni ma dem nga ma ni man dama jig jigéen luñ ma luñ ma dig ma ci jot fekk ki may dig yorut lim may li may lim may jox wala bu ko yoree itam mënu ko te la ma waroon wax rek mooy lii dëgg mooy am na fi waaye mënuma ko wala ah yow kat fi mu toll nii tënewuma la boo ko defee ma dem seeti fa ne mais dëgg googu yi fi mu toll nii moo moo jeex ci senegal duñu duñu wax li am duñu wax itam li ñu nar mooy toujours li may faral di nettari rek naan Cheikh Tidiane si doon na ko wax sëñ Cheikh Gaynde Fatma bu ñu dajee France mu laajte ko ñu wax ko hôtel ba mu nekk ñu ñëw di waxtaan wàcc ci suuf lu mat ñeenti waxtu ñuy waxtaanee réew meeg jikko yeeg bokk geeg loolu lépp mu ji Cheikh Tidiane wax ne ko nag ne ko Cheikh danga maa jaaxal mu ne ko lu tax mu ne ko Sénégal doo wax te fii bi ma fi toogee ak yow maag léegi maag yow kenn selawut loolu ne waxtaane nañ ko mu ne ko Sénégal dama faa gisul ñu ma waxal mu ne ko Sénégal ak ni mu toll gisoo fa ñoo waxal mu ne ko déedéet mu ne ko Sénégal ñaari Sénégal ñaar doo nga fa nekk ñaari nit doo nga fa nekk kii li muy wax gëmu ko ki ci des li muy wax du ko def te loolu moo moo moo daj Sénégal fi mu doon ni mbooleem ñi yor programme di laaj réew mi ñëpp fi mu doon ni liñ naar dëgg waxuñu nu ko te noonu itam amuñu ñoruk wala wayuk mën a toog xaar leen ñu indi seen programme ñu jàmbar ko xool programme bi ba mu dëppoo ak ni ma yaakaar ne noonu la ñu war a yore réew mi ma doon laa jox sama carte waaye ñàkk xam tax na nun ñi nga xamante ni noo waroon a doon ay noble ci seen kaw noo mujj doon ni baadoo la parce que fi mu doon nii mboolem candidat yi jóg dugg ci biir réew mi soxlawuñ dara carte wi ci sama poche rek lañ soxla parce que Sénégal ci carte la ñuy fal ci la ñuy folle suñ borom a yor nguur di ko joxe waaye secret bi ci carte la ko jaarale kon man maa waroon doon noobul bi nga xamante ni man lañuy neexal di ma këpp-këpp léegi nag may jiitu ca kanam di yuuxu di sarxolle di yor suuf la di fecc di kaar di soli tiset loolu est-ce que fayda la du fayda du ak nite du ak xam mooy Sénégal yi xamatuñ lu ñu war a def dëkk bu ci nekk dañoo waroon a mobiliser wu toog dajale seen kàddu tënk ko jox ko kenn buñ leen fekk see ñu ni luy seen programme ñu ni ko ñun li yooyu suñ programme lii nangam programme bi buñ ci gisee suñ bopp mën leen a jàppale leen a jàppale ndax nangam ki nangam kii nga xamante ni mooy yoroon réew mi itam daanaka bu fekkonte ni dëgg dëgg mooy li am jur mooy mooy mooy campagne na def bilan suñ ko wóoloo joxaat ko buñ ko wóoluwul xañ ko ni ko defoo fi dara mais jërut mu dépensé xaalis war fenn fu ci ne mu wër fa que nit ñi dafa mel ni xaalis moo leen di jënd mooy jaay nañ seen jaay seen diine te loolu lépp mooy li waxoon ci kanam rek mooy jikko ji yàqu rek moo do te jikko ju yàqu ci mooy ñàkk jàng ñoom daal sénégalais moom li problème moom dëgg mooy jànguñu diine doxalinu àdduna xamuñu ci dara ñi ci xam dara kess niu japp nañ ni ay fen ak yow rut moo ko yor da balang ko xam fi mu mois de avril teru léeg-léeg nit dalay wax lu toy xep ba nga gem ko mu wowat la ni la poisson d'avril la maanaam xamuñu sax fenn lu mi <laughs> wañi ab julit te yoy yep moy diine ji yaq rek nga waxon rek pass pass bu yaq rek moom jàpp. waaw jërëjëf sëñ bi euh, li nga wax leer na lol amna solo tam ñi amaat leneen lo xamanteni ci dañ la koy laajaat muy jamono ji ñu toll ndaw ñi surtout ma xalé jigen ñi dina am ci ñen ñoo xamant ñen ci xalé jigen ñi dañ leen bëgg baax di leen bëgg aw ci yoonu baax di muuru di yiwee di japp ko julli waye sel nañ ci jamono ji ni yaq yaq yu jukke yi dem na ba fo xamanteni ci xalé bi jigen bi nga xamanteni ci dafa aw ci yoon bi nga xamanteni ci moy yoon siratal mustaqim di muurul ak di yiwee dañ lay gafal su fekkenteni da ngay muuru dañ nan ak ah, ki de mom gaf bon la yor dina gaaw a teen borom kërëm dila gafal dila di eh, jox jukko yo xamanteni si ni sax meloo ko ak dina la soufel soufel bo xamanteni si bo amatu boy deug deug so amatu gëm deug deug bo jamu deug deug man nga ca génne ci lo xamanteni si ak ñen lay alquran di wax na ni wa atuhum qintaran min sahab nañ leen jox ci ak can daggitu or dagitu or rek fimu ni boko evaluer ñaata la ci ay millions ah société bi nag ci bëgg ak sëy ak mag ñeeg seen xalaat la ñuy xool ba ni léegi can gi nañ koy def ñetti junne ak ñaar téeméer ñenn ñi nañ ko def junne ak ñaar téeméer yooyu yëpp ngir yombal ab sëy ci diggante ñaar yooyu dencante moo tax waaye su fekkonte ni dañoo sukkandiku foofa wa atuhunna qintaran min az-zahab mel na ni balaa nit a jot ñoom danga nga dépensé alal yu bëree bëri kon mëneesu leen a muñ mëneesu leen a ñàkk ñoo war a protéger seen bopp taxaw fi leen diine taxaw loo jël garde-fou teg seen diggante waaye nasax nañ nasax goo xamante ne ni fa la ñu ngi leen di jaarale ci barab yoo xamante ne ni doonut seen jaarewaay te dara seenu ñàkk fayda rek ko waral mooy boo boo doon dox ci mbedd boo nee ñoom ñëpp àndandoo gestu te loolu ak ñàkk fayda la ba tey koo ci jox loxo mu joxaat la ko ba tey itam fi mu ne nii koo ci may ñaar téeméer ñaari yoon fu mu jàddati dana la laaj wala dana jaar si ci yow koo ci joxanteelu rendez-vous mën na laa seeti te yooyu yëpp ay danger yoo xamante ni ñàkk xam fi ñuy teg seen tànk ci diine loolu rek moo ko waral mais bu ñu xamoon li leen diine autorisé ay nit ñu noobal la ñu doon nit ñu responsable lay doon te gone yi itam li wér te mooy njaboot gi ñuy wax mënuñoo soppiku mukk te jigéen ñu soppikuwul bu jigéen ñu soppikuwul rek dara du baax faaw jigéen ñi soppiku. waaw jërëjëf sëñ bi nga wax lépp leer Euh, dégg nañ ci kàddu yi nii suñu toppee ñun jigéen ñi suñu aaraatee suñu bopp am suñu fulla am fayda suñ ko defee euh, li ñu lu ñu bëgg rek ci àdduna mën nañ koo am kon ñun jigéen ñi war nañoo muuruwaat te xamante ni si muur mooy li nga xamante ni si mooy li ñu jikk waaye ginnaaw loolu nag ñu ngi lay wax ñu ndaw ñi lan nga ñuy dénk ak ban yoon nga xamante ni si ni suñ fa jaaree dinañ mën a euh, àgg fa ñu bëgg dinañ mën a tegu ci yoon siraatal mustaqim waaw su ma doon tënk de damay wax ni rekk ni yoon wi ñu war a dellu daal mooy sàkku ci xam-xam te yar ci diine loolu daal mooy mooy li nga xamante ni nii mënta ñàkk ndax jamono lañ toll joo xamante ne nii ku xamut bokkoo loolu El Hadj Malick da koy wax ni isa kunta lam taqra walam takun fahima fa mawtu ko xayrun min xayaatika daaima nee na fekkente ni nii jàngoo te xamoo dara nee na sag dund moom dee ko gën kon nañ cadré ndaw ñi delloowaat leen ci daara yi formé ji leen te yar leen ci diine suñ leen di cadré ci xam-xam yar leen ci diine bu ëllëgee ëllëgi réew mi danañ ko mën a mën nañ ko mën a yóbbu fu sore sore réew mi moom xam-xam rek ko yor du du doolee koy yóbbu bu ko doolee doon yóbbu nag ni dem na bu yàgg waaye xam-xam ko yor xam-xam bi nag bu bu ñu jàng leen nañ jàng lépp moo xam façon làkk bu man di doon te àdduna di ko wax nañ ko jàngal suñuy ndaw ndax mooy tax ñu mën a communiquer ak àdduna mooy mën a tax itam nu mën a participer ci développement bi nga xamante ne ni àdduna mi ngi koy dox su fekkente ne ni gone yi jànguñu nag su fekkente ni gone yi yaruñu leen nañu wóor ni itam fii ñu toll fu ko yées fi lañ jëm loolu nag mat naa bàyyi xel incha allah bu ko defee itam jigéen ñi góorlu ci gën a sàmm seen bopp gën a itam méngoo seenu dundin ak ni leen lislaam rëddal ci ñuy dundin bañ a xool occidentaux yi ni ñuy dundee damay wax ni képp kuy topp nit ba seen këram ni doro di tàkk xanaa war nga amum xel ci wàññi ko tubaab yi moom seen seen kër tàkk na kon jullit ñi xam nañ ni li ñu yor mooy mooy original bi mooy li nga xamante ni moom la àdduna soxla dañoo war a dellusiwaat suñuy kër organiser suñu bopp yar sunu njaboot defaraat suñuy toogaay te xam ni wal aqibatu lil muttaqina loolu suñu borom a ko waxte ala kulli xaalin dana ñoo ngi jéggul bu baax a baax di sant bokki taalibe yëpp wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. bu baax a baax di la sant ci nangul gi ñu nangul ñu ñëw fii def ak yow bi euh, di leen wax ne euh, fii la woon ci seen site internet Mourides Info ci fii ci seen émission jikko yéen a wasalaamualeykum wa rahmatullah taala